bu baax. am nga jàmm am nañ jàmm ak mbégte. yaa ngi sol sa Nike macha allah laa nga sa xarit Yande Diop ak sa rak Fallou Ndiaye ah safrala Xaadim ñëw tey ci làmb ji jéey tëgg ki nga xam ne mooy Narou Sogas ak Jackson Senior. waaw mais noonu la Babacar maa ngi la sama mag Yande ak sama rak Xaadim vraiment ñu ñëw toog seeraan si làmb ji comme jéey suñu mag la suñu frère la yaakaar naa boo organisé dañoo war a bàyyi suñu de ñëw seeraan si comme niñ koy defee bu ñuy organisé làmb yaakaar naa loolu moo doon suñu tànk tey diggante Fallou ak Dieye parce que fa Dieye kere invité naa ko laaj ko ci mu ne ma Fallou sama rak la. waa non loolu mu la wax mu am te yaakaar naa daa du ko dindi ndax ay nit bu ñuy ànd dem ba seen njaboot nekk benn yaakaar naa jomb nañ sax ñu ñuy dégg ci leen wala ñu dégg ci ñàkk fayda te jàpp naa ci àdduna loolu du ma sa am ndax suñu mag la ñun liñ man rek mooy jox ko cërum mag ay jarbaatam jox ñu cërum nijaay ñu jox leen cërum jarbaat ñu seq loolu kon yaakaar naa loolu daa du am ci diggante bi lu jàmm ak looy waajalati ginnaaw Ada Fass Tapha Mbeur. waaw ginnaaw Ada Fass Tapha Mbeur xam ne ñu ngi ñëw le le 9 le 9 décembre incha allah le 9 janvier ci diggante Vieux ak ki nga xam ne mooy Youssou Ndour bu Lebu gi. Vieux Dacia benn. waaw Vieux Dacia benn ak Youssou Ndour bu Lebu gi ci la bee bis ak Baye Mandiaye ak yeneen champion yoo xam ne ñu ngi ci biir ndax ku ne xam ne ay caatu piol bi xale yooyu yëpp ñu ngi ci biir combat boobu mooy lamb joo xam ne ñu koy waaj comme ñu doon waayee suñu amateur dañ ñoo sas yaakaar naa bi ñu mujjee ñëw arène nationale gis nañ ni meloon kon buñ fi ñëwaat nañoo waaj ndax niveau bi bu yéegul war a waaj bu jógee foofu nag baaxkat ñu ngi waaj ne bu am solo muy caatu yaraax bil désert boobu ñu ngi xaar rek incha allah xam naa mois de fin janvier wala février incha allah bu CNG pare pour joxe daal rek ñu dem jëli ko di ci waaj nag ay surprise yu mag incha allah naa may surprise yu mag ndax naa may combat na ni ñëpp nañ jàpp ne mën ta nekk te nañ ko nekkal ci kàttanu yàlla. sélectionné waat. non nañ ko sélectionné te dina nekk incha ndax yaakaar naa journée boobu li bëgg mooy gisee fermé arrêté national fees ba ñu tëj yi ndax liggéey la te dañoo gëm ne espoir yi am na ci ay expérience yoo xam ne nii war nañ cee mën a liggéey loo xam ne nii dinañ dem ba tëj arrêté national ak caabi yi ñun gëm-gëm boobu lañ ak vision boobu te fekk defuñu ko duñ dem coup de grand. parce que nag li fi def bu yàggul tey waratoo defaat pour man ko gën a féete suuf moom boo bëggee dégg. non Bakar lépp lu a bu ñëwee arène nationale bu nee leen foo seen journée bi nee nañu def am na yaakaar da ngeen gëm ne nañ tëj arène nationale tey suñu loxo ndax loolu lañ gëm te loolu la ñuy def incha allah rabbi kon Fallou yàlla na yàlla mot li loolu amin Babacar di nuyu nag waa Ndiaye production bi yëpp jidal ci ma suñu mag yande Xaadim ñoom Mor Parcelle am di Moussa Fa Fallou El Capo niñ koy waxee rek ay Moussa Fa Mbeng c'est-à-dire ñooñu ci Ndiaye production bi di ci liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu am solo ko rek leen wax sant gërëm leen ndax peccum liir bu jàpp bu neexee rek day jaay jàpp ci wagg ya te ñooñ ñoo ciy jàpp di soon sonn kon duñ def lu du leen sant leen gërëm bu baax di nuyu amateur yi di leen wax ne incha allah bientôt rek dinañ waat ñu béggewaat mais sa digganteeg sarak Xaadim jaay parce que gis naa foo toog Xaadim gis naa ko sax muy xeex des fois ah, des fois ndax ndax ndax Fallou Ndiaye waaw mais Xaadim Fallou benn la Xaadim mooy sama baay da nga ne xaayu ne Fallou kon kay benn la sotti jeeg la rek jeex na Alaaji Yande tamit gis naa ne jaral nga ko lu ne moom tamit ah. non kii suñu mag bopp la kii moom ñun ñoo ko bëggal suñu bopp c'est-à-dire Yandé biñ koy xam dañu doon romb nii rek xamuñu ko mais ñun ñoo ko bëggal suñ bopp wax ay xaritam ku mel ni Dieye ne ko Yandé ñun dañoo neex ñoo ko bëggal suñu bopp. billaay loolu waa ñuy ànd jofeel bi ci ñun la jógee dem ci moom ñun ñoo ko bëggal suñu bopp te suñu luy tax suñu diggante leneen di ci am kii lu mu bëgg maa ngi ci wóor na yàlla ndax ñun ñoo ko bëggal suñu bopp billaay loolu am la 5 décembre Fallou luy xew. non la 5 décembre bàccum gerte la rek dañoo bëgg gisee fermé rek di wax ñëpp jàpp ji ci événement bi ñëpp jàpp ji ndax événement la boo xam ne nii yomb naa taal yomb naa jaay kon bu ci presse bi jàppee ñëpp jàpp ji rek incha allah nañ gis lu ne ndax ku ne si dem Papa Sow ak espoir ne ci ay ñoom trompeur 2 ay lesandeer ay bekaay bu saa njàmbur ay xale yoo xam ne ay turbo c'est-à-dire am xale yoo xam ne nii yaakaar naa bu promotion bi gënee dem. nit ñi gën ko yëg nañ xam ne làmb la joo xam ne nii vraiment amateur yi nañ ko xaar ndax gis nañ ne plateau bu riche la te it làmb la joo xamante ni Babacar a ah mooy événement bi de. c'est Papa Sow. mooy événement bi de. mooy événement bi. mooy événement bi de. tey xanaa bu ñëwee ba jógee bi ah nañ ne de. jàmm gën a parcelle. non du yomb da bool xool ne tey si tali li mu jógee Papa Sow jógee Fass waa parcelle war ko ëmb tey waa parcelle duñ seetaan mukk ci àdduna. Siteu di noyé passé ci saat bi Siteu daa am ci lu mu jógee war a am lu yokk yaakaar naa loolu di ngeen ci gis leneen di ngeen gis yeneen ci lam te it Babacar fii di ngeen cosaan de non dinañ dem maire bi yaa faatu il faut mu ñëw Momo Ngom il faut mu ñëw. nday faatu Adama Jël nday faatu Adama Jël day ñëw Momo Ngom day ñëw incha allah le 5 Babacar daa du yomb. le 5 décembre kon rendez le cinq décembre Siteu Papa Sow arène nationale. ak Pape Abdou Fall. Pape Abdou Fall billet yi yomb na lool 3000 la 5000 10000 25000. yaakaar naa loolu moom Pape Abdou Fall tojul kenn ni ko père Maxime waxee tojul kenn. Fall koo bëgg mu gagné bés boobu. ah déet Babacar yow laa koy laajaat. man de xamal ni. lu ma bëgg bëgg naa lu ko raw. ma bëggee benn bëgg naa ko fukk. loolu laa lay seedeel. Fallou wax na léegi ci yow sa digganteek moom sa mag la waaye am ngeen diggante bu dëgër daa mel ni ah. waaw benn lañ benn lañ mooy moom maay moom ñun ñaar ñëpp benn lañ amuñu xaj ak seen parce bokk ndey ak baay daa neex diggante mag ak moom jaam ak salaam rek moo seex ñu koy sant yàlla rek xam ne réeréer ñu dara daal di ko moom tamit ku baax la. damaa def comme morom ma def ko comme morom boo ñu xoolee sax da nga naan du ñu ay mag ak rak mais yàlla def na ay mag ak rak lañ amuñu xëy ak sey loolu moo tax loolu leneen ñu sant yàlla rek ñoo la gën a kontaan Babacar. loo ciy leeral Sénégalais. sama papa la sama lépp la et puis ñu bokk bawal may dem këram Géejawaay di fa fanaan chaque jour kon bu xewlee dara même bu sama combat doona suba sax damay ñëw parce que sama papa la sama lépp te dal may jàppale guddi dal may jàppale bëccëg. lépp lu man naqari bu ma ko woowee ne ko lii laa bëgg mu defal ma ko kon koo xam nga ne aw moo fayam bu xewlee da ngay teey sama lépp la daal maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ci barke Alxuraan ak jarbaatam Abdou Seen waaw. kontaan ci yow. jaajëf Babs. ba am nga jàmm. waaw sant yàlla bu baax. ñaari xale yi boo leen xoolee. boo xoolee Jackson moo ëpp yaram naaru moo saw am nañu xalaat ne Jackson ëpp doole am na am na ne nañu nañ ne naaru dàq bëre. combat bi fii mu toll nii lan moo koy gagné. non ñoom ñaan nag ma leen nag minu ma leen parce que ñoom ñaar ñëpp mën naa ni kii la ma kenn laa ma seetaan seetaan combat kenn kii nag ki xaw ma ko non non moo tax booy wax booy wax da ngay wax loo xam loo leer moo gën a way wax lu leer moo gën a wóor laaj ci benn combat Papa Sow Siteu xam nga leen. xam naa ñoom man maa ñëw tuuti waaw tuuti tuuti. ñoom ñaar seen combat la 5 décembre la. combat boobu noo ko gisee ak loo ci war a wax. combat boobu ne combat woon combat combat la parce que Siteu xale la am na mbooloo de mën na bëre waaye mi ngi dajeeg adversaire boo xam ni adversaire boo xam ni bu rëbb table la. Papa Sow ndaamal loo xam ni. mën naa am lu ñemel fit mën na xeex ba pare neexul a mën a bëre ba pare loxo bi diis na te du arrière am na njàmbaar kon combat la combat boo xam ne daal ci te nag fi la war a prouver oui. Siteu pour mu prouver lu muy andi lan naka lay bëree ak nu muy xeexee. xam nga nag euh, làmb fu nekk dafa ànd ak euh, estafam ñi ko yab indi ñooñu ñoo koy xelal waaye nag euh, xam naa ci leen de te Papa Sow ni mu gisee du arrière un pas. Papa du arrière. déedéet. mais bu dina baax ci moom. Papa Sow. Ah. ndaama la mais mag la waaye màggatul. mag la waaye màggatul. waaw parce que hygiène de bu baax lam am te neexul mën a bëre. te am na njàmbaar te loxo bi diis na te day xeex day attaqué oui loolu la. ñoom ñaar techniquement kan moo gën a duye ci wàllum bëre. xam nga làmb ku jum daanu benn prise mu ngi ci nekk benn prise rek mu ngi mu ngi ci nekk champion du monde waaye buñ ko xamee ba trouvé ko boo daanu ki ko xam ba trouvé ko bu la ci daan buñ ko trouvé da dañu xamoo dara moo tax techniquement li mu defoon rek mooy ku jum daanu. seen combat xeex mën na ko jeexal. Ah. du ñàkk xeex. du ñàkk xeex. du ñàkk xeex mu daanu mën na ci am. ah oui dóor mu daanu mën na ci am oui mën na ci am du ma mu daw jébbalu mu jébbalu joxe boppam mën na ci du ma nit mu daw laqatu pour am jàmm mën na ci am. luy avantage ci combat bi. Siteu. <laughs> ngi may yaa ngi jëm a guux sama xel nag yaa ngi jëm a guux sama xel. non dama bëgg a xam papa ñi seetaan bëgg a xam. daal. si talu avantage am. kël meer gañ fa laa mën yem daal kël meer gañ merci.